amul problème. d' accord na bañ a nekk jullit sax kooku ba tey amul problème. ay ayca cheikh bi ba nanoo vraiment mbirum transhumance. Hmm. gis nañu fan yi ñu koy wax ba démb am na benn bu ci am ñu ne aji mbergaan euh, ñëw na Pastef ak yooyu yow sa sa taxawaay ci ci transhumance lan waaw dama ko dama ñaawlu euh, ñëw aji lool ci Pastef. moom jëmi waaw dama ko ñaawlu. li tax ma ñaawlu ko ma aji mbergaan moom gis nga doomu aadama dafa am loo xam ne daa mënut te ñàkk ci moom muy wayu rafet. Mm-hmm. te tey moom amoon na ko ndax man euh, position yi nit ak ngëm-ngëmam dama ci dul am benn problème fàttaliku naa keroog bi ñu waree dindi malaanu kirlaayam Ousmane Sonko pour mettre ko à la justice. ca mm-hmm. dossier Adji Sarr. Mm-hmm. moom Adji Mergane Kanouté ki ñi yabaloon seen yi ngir ñu accordé ñu dindi malaanam kirlaayam ci la bokk moom Adji Mergane Kanouté ci la bokk. ñi ko daan yàq ak sànni xeer itam moom ci la bokk man su ma doon mooma ba Sonko moomee adduna bépp man ñi muy moom man du ma ci bokk waaw ad moom man moom Amérique moom Angleterre moom Allemagne moom France moom suuf sépp man dinaa doon seul koo xam ne man du ma moom man naa doon seul koo xam ne man du ma accepté idéalisme ilaa yumil xiyaamati d'accord donte na ma moom ba dem ba d'accord sama xol ba xam ne kii yaay na ma du teye man damay bañ ci kaw nga xam ne man dama bañ loolu nag damay faral di wax ne même moo waral euh, transhumance bi Mame Boye Diao def boobu it àndoo ci. dafa doon lu ñaaw encore waaw dafa doon xam nga mu ñaaw. Mm-hmm. mooy bu fekkee ne bi Ousmane Sonko di dem si à la amul benn bis bu mu génn wane ne lii du yoon. Mm-hmm. dégg nga dañ koy metre à la justice ci Mame Mbaye Niang te te du dëgg du yoon. Mm-hmm. te mbir man mbir ku ko ku ci ku ci noppi rek. c'est-à-dire mooy d'accord nga ci d'accord nga ci bi koy def ni ñu koy def amul benn position ci loolu. dégg nga. Mm-hmm. ba aujourd'hui ñu jëm ci ay élection présidentielle adduna bépp ak may dégg mën a leen candidat yii ñëpp dañoo bëgg a fekki Ousmane Sonko ak Diomaye par deuxième tour amut ñu koy tànn ci élection législative yi parce que dañoo jàpp ne rapport daf leen épinglé te effectivement rapport daf leen épinglé mm-hmm. man foofu man bu doon may Sonko. Mm-hmm. Kolda bi mam booy jaaw di jaar ne doon candidat ba koo gañe amoon naa fa représentant bu bëggoon ma gañe donte ku kenn lu ko amul xaalis la ko doonul dara. weerason président Seydi Diallo ma gañe ko ka ma fa nekkaloon da xëccoog Mame Boye Diao amul xaalis amul oto amul saa bu mu sangoo amul njàm bëggum bombo kooku laay jël man def ko am Mame Boye Diao pour lu suuxal Mame Boye ci dëkk ba am relation intimité yi dox seen digg nga xam ne ak mbokk la yàgg na ñu jàngandoo nekk et cetera ñu nekkoon impôt dam yooyu yëpp ma garde ko muy añee sama kër di reere sama kër su may tukki tàggu ko mën naa nekk mhm. su may añ añoo doog moom su may reer reerandoog moom su may tukki tàggu ko waaye moom may añ na ko su may reer na ko kaayu ñu reer su may tukki ko su ma ko soxlaa woo ko su ma soxlaa woo ma su ma soxlaa sama soxna yónni ko ma yónni ko ma soxlaa sama doon yónni ko fa ama politique bi politique politique boolewu leen mhm. aussi itam ki ñuy wax Dora Baldé n'est-ce pas Dora loolu waroon naa man a ñàkk bu baax xam nga dafa am politique daa am foo xam ne bu fa tolloo ci misaal ko mel ni Sonko yow mii witoo mhm. su bëggoon nga nekk leader fee ca Ziguinchor mhm. suba suba ngay seen patron loolu yàlla may na ko ko fi ne su bëggoon nga doon leader fële ca Tambacounda bu subaa ñëpp lancé ci sa ginnaaw Sonko ci guddi yi ñi mu bokkal part ak ñi ko bokkulut ñi mu bokkal am réew ak ñi mu ko bokkulut du wax du wax wax joo xam ne intéressé na ko tam ñor ko nit dikk di wutal wax xalaat boobu mu xalaat xel xalaatu ko sax mën na ko. Guy Marius Sagna du woon benn activiste. Mhm. su wàccee ci mbedd mi gaa yi jàpp ko tëj. keroog bi mu jàppanteeg sonk ba tey ji gisati nga ab coonoom ko ñu mu jàppanteeg Sonko Sonko Ziguinchor la ko yóbbu présenté ko waa Ziguinchor mu dem législature dem dem assemblée nationale te demaat na Ziguinchor day noo quatre député lu ko def Guimard rek mën na koo def ka fa dëkkoon doon ko jàppale man xaw ma ko de ka fa dëkk man ka fa nekkoon Kolda xaw ma ko. Mhm. man milieu politique yooyu Pastef comprendre ma ko à 100 pour cent moom daan ma coordinateur yi départemental et cetera waaye ñooñee hmm. xalaat da leen war ah kon moom amu ci responsabilité fu mu toll nii. non bu dee bu Mame Boye Diao. ak bu Dora. ak keneen ku bëgg ñëw. sax non non ah, taxawal taxawal ah attends xam nga bu Mame Boye Diao ak bu Dora boobu noonu Sonko recevoir na leen. Mhm. recevoir na leen seetaanu meeting boobu. Mhm. recevoir na leen. Mhm. boobu pour pour man recevoir gi pour man man loolu loolu daal gis naa ne lu koy yàqal la de mais du lu koy defar. Hmm. waaw. c'est-à-dire ñoom seq nañ lu dul politique man xam naa loolu bu baax a baax. d'accord seq nañ lu dul politique am nañ ay relation yu jaxasoo yu jegeyantoo waaye Sonko daa ñàkkul dara lu nit yor lu mu war lu mu war a soxla man boog ni ma ko gisee dafa am lépp ba pare. mais est-ce que gisoo ne peut-être même bu ñàkkul sax war na dajale waa réew mi war na. jaadaat fédéré. Mm-hmm. ak tamit. ku tuub mën a ñëw ne man comme ku ne man vraiment maa nekkul woon ci yow dëgg léegi xam naa ne lii mooy dëgg dinaa ñëw jàpp ci xam nga xam nga wax xam nga wax si yu mm-hmm. ba dayoon Xamsatu na Abdul Muttalib mm-hmm. yonte bi da koo mere woon ba nga xam ne bi ñëw di tuub si yonte bi da koo faaliwut waxu ko faaliwu ko ñu ñaanal ko njekk ba mu nangu ba yonte bi nangu waaye yonte bi da ko xam nga lu mu ko wax mm-hmm. amul benn problème nga lislaam moo gën a sacré lépp mais waaye bu ma feete kanam mukk ma di la gis moom bu ma la gis te tuubal te tuub na julul ab julit la mu ne ko bu ma la gis d'accord loolu ko bu ma la gis boo yow daal fexeel bu ma la gis rek ànd nañ de pourtant. Mhm. mais am na réserve dëgg. dëgg la noonu la. <laughs> ah fële ci Sonko war a féetee. ah noonu loolooy dëgg sëñ bi. d'accord parce que mbir boo xamee ne waa ji bi muy tàng. Mhm. gisoo ko. Mhm. moom nga xam ne ñoo yem bu tàngaatee doo ko gis. te ñoom fi mu ne nii li doon yoon te baax tax ma gën leen a fonk man mooy ci bi muy tàng ci Macky Sall mu ngi seen a Macky ndax bi muy sedd ci kaas bu Macky naan bu naa ne jox leen bu góo Macky góoxee kon tey bu ta Macky góoxee bu tàngee dañu war a góox loolu mooy nit. te réew mi benn leader moomu ko Sénégal yaa ko moom di Sonko la ñu loolu moom mooy yàlla dogal. Sénégalais ñoo moom Sénégal te Sonko la ñu te élection législative yi xam nga ban problème moo nar am. après élection yi. da gis gis baa boo xam dina la soof trop. ndax sonk bu demoon moom dong kepp àndul ak kenn day gagné élection yi gis nga gaa nag mooy bu ne leen yéen ñëpp toog leen seen i dem te ñëw. Hmm? dana dem dana dëkk dana gagné élection yi largement <coughs> yaa ngi dégg te suba moom dong ko gagné nii mu ànd ak ñoom itam ba gagné jotee moom dong ngay gagné mm-hmm. waaye su weesoo xam nga nu muy demee ma man maa ko fal maa ko def lii maa ko def a a a ah, xam nga sénégalais xam wax boo xam ne nit ki su ko amee ba di ko wax soo ko moytoon du ko wax d'accord xam nga Cheikh Abdou Mbacké bi ngay wax toog na seen yi journaliste yi mu ne ma moo fal Sonko moo fal Jomaay journaliste faloo ko de présidentiel Amadou Ba nga àndaloon mu raadi réfléchir xalaat xam ne li moom nam mu daan lijjantee mbir yi lii ko ne lijjante parce dafa leer mm-hmm. mooy mbir aw aw lant daa war a jeex gis nga le PM mm-hmm. dooleem foo ko takk da ngaa weesu fene da da dooleem discours am foo ko takk weesu na ko mën-mënam ci kattanu yàlla ci mën-mënu yàlla foo ko takk da ko weesu fi nii maanaam toll na ci si àdduna fi ne ci situation boo xam ne nit mosu faa toll ci ci ci man li ma xam man waaw léegi nag loolu ndam loolu bu ma ko bàyyee kenn. d'accord lenn xanaa moo ci war wa maa ramayta is ramayta walaakin allah rama kon allah jamaal islam fala budda min sakwa ila allahi kurbati wa maa liya xayra allahi jaabiru kasrati wa xaarixiya baabal xayri yaa rabbi lam yafit lisaaka saraf na naxwa baabiki wijhati mbiri daal booba baa yàlla rek moo ko moom wa maa ramayta is ramayta walaakin allaahu rama fi ne nii mbiram aajowut mu ci sant nit wala mu ko ciy gërëm hmm. dee ne xanaa mu rafetal ndax rafetal baax na hmm. waaye mbir mi day mbirum yàlla am mi mbirum yàlla Macky Sall bind na lettre démb moom it euh, nee na réew mi ñoo la fi bàyyi woon waaye ñii ñu ngi bëgg yàq réew mi euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi vraiment teggi réew mi ci yoon wi mu ko tego